بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il wa ala alihi wa sahbihi sabi ridwani wa tamkin mbokk yi taala wa barakaatu euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci seyxuna ahmadul xadim ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général kullu murit yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram di jaare sëriñ Sidi Mbacke jëwriñu kër Cheikh Abdoul Ahad mbake di ko ñaanal yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu àggale ay naalam yëpp te ànd koog mboolem rakkam yëpp te am ci ngërëmul sëriñ bi. di siyaare <clears throat> borom ëtt bii ñu toog di sëriñ Amsatul Xadim ibnu Cheikh Abdoul Ahad moom it di ko ñaanal yàlla yàlla ko fi yàlla bàyyi jàppale ko ba mbooleem lu di ak bëggam ci liggéeyal lislaam liggéeyal ko yoon wi suñu boroom may ko ko mu def ko nu kawe njortam di jaare bu baax sëriñ Bassirou Anta Niang Mbacké di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daarul Muxti di ñaan sunu boroom yàggal ko fi te dooli wéram jàppale ko ba naal yi mu naalal lislaam ci ëttub borom daarul moxti wuutu fa ay magam yal na ko yàlla jàppale ba mu def lépp di ziare bu baax sëriñ Moustapha Absa Mbacke di xalifa sëriñ Mouhamadou Awa Balla Mbacke di taawu maam Thierno Ibrahim di ziare nag jëmm ji ñu dalal di sëriñ Abdoul Aziz Mbacke moom sëriñ Modou Awa Balla di fas yéene seq moom ab jataay jataay boo xam ne ku gis jëmmam. buñ la tuddee ki ñuy bëgg a waxtaanee da nga xam ne jaadu na ci taxawaay yi nga xam ne suñu borom dimbale woon na ko sëriñ Abdou Lahad daan ko ko taxawee mu di jàmbaari lislaam jooju nga xam ne 1914 la feeñ jamono ci njaareem génn àdduna 1989 liggéeyal fi yàlla liggéey boo xam ne àdduna dutu ko fekke fàtti di ñi nga xam ne feeñ nañ ginnaaw bu sëriñ Touba jógee ci géej gi ba ñëw njaareem waaye sun borom pas-pasam ak yitteem may ko mu bokki ca ña nga xam ne ba sëriñ bi demagut ci géej gi la leen amoon te loolu yitte ak pas-pas moo ko ko may wax lam baat bi mu daan wax ne nelewu guddi ginnaaw sëriñ bi lañ ko tal daane wax it ne ku dem ma dem ku demul ma dem ku koy doxe boo gestoo gis mbooloo mu bari sa ginaaw daan soññi boppamit di wax ne dama gont ngont mu guddi te bëgg a dab ña xëyoon kon yooyu baat képp ku ko def ak laxasaay ci sa kanam sun borom mën na laa may nga dab ña njëkkoon a xëy loolu nag dal na ko ñu fas yéene seq nag ak sëriñ Abdoul Aziz ci seen télévision Lam Fall TV di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel jataay yi am ci ëtti murit yi waaye jataay yi am ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ñu di ko dàkk ci seen télévision bi di Lamfal TV sëñ Abdou Aziz ma nuyu la bàyyi nga nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi su ko defee nag ñu daal di seq ab ci sa wayjur bu baax nga xam ne suñ borom dimbali na nga taxawoon ak moom bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi baad asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki ñu ngi leen di nuyu bokki taalibe yi bokki jullit yépp di jiital ci nuyoo bi ak ñaan yi Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi fi nekk Serigne di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla bàyyil na ko fi may ko ak wér ba mu àggale ay naalam ak ay naali waajuram yi nga xam ne ñoo ko jiitu ak ay waa magam yàlla na ko yàlla defal tam te lépp ànd ak jàmm tan ànd koog moom ñoo ngi koy nuyu itam li nga wax Serigne Bachiru moom maam Thierno Ibrahim moom it di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla may ko wér may ko fan wu gudd day soog toog te am yéene liggéey waaye yéene ji mu am yàlla na ko yàlla àggaleel yàq sëriñ Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha moom sëñ Modou Awa Balla yàlla bàyyil na ko fi moom itam tam am ak wér eh, ba àggale yéene yi waajuram ak ak yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ñëpp ak yéene jin ko yéene yàlla àggaleel na ko ci kanamam tam yàgg loolu te waaye nag may siyaare borom tàmbalee ko ci sëriñ Amsatu moom Cheikh Abdoul di ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla may ko fan wu gudd may ko ak wér moom itam mu tegal ma ko mu tegal ma ko ci loxob Serigne Sidi mi nga xam ne moo fi nekkal si Abdoul Ahad Mbacké ak njabootu si gépp yàlla na fi yàlla bàyyi yàlla may leen ak wér mm, yàlla may leen kattan ak wërsëg ban mën a àggale yéene Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak seen yéene bopp ci barkeb Serigne Touba kon sëriñ Fallou ñoo ngi lay nuyu bu baax mooy itam nuyu waa jataay bi yëpp itam xëy na euh, ku lim da nga juum waaye nag fu ab xalifa nekk di ab si ab jullit noo ngi lay ñaanal euh, li ñu ñaanal suñu bopp moo ngi ñaanal itam ñu bokk ci waa kër sëriñ Tuubaa yëpp ak fu ñu mën a nekk yàlla nu yàlla boole ndimbalal boppam yàlla nu yàlla may ngërëmul sëriñ Tuubaa waaw kon noo ngi euh, bàyyi yam foofu rek ba waxtaan wi tàmbaleeg jàmm incha allah Euh, jërëjëf euh, sëriñ Abdoul Aziz ci nuyoo bu matale bu sell boobu euh, ñu bëgg a waxtaane rek koo xam ne am na kàddu yu mu waxoon dafa waxoon ne ku lëggéeyal sëriñ Touba. Mhm. murit yee la war a fay. Mhm. te moom kenn nattabliwut na lëggéeyal na sëriñ Touba. Mhm. nga man cee dégg na it ku lëggéeyal murit yi kon sëriñ Touba lay fay. tañ eh, bëgg ñaari pay yëpp mm-hmm. te inda zikri saalihin tanzilu rahma mm-hmm. te yaakaar naa bu ñu doon seet ci gaa yu baax yooyu nga xam ne boo leen waxtaanee yërmande yàlla wàcc kenn du ci man Seex Abdul Ahad Mbacké sun borom defal ko it ak barkeel ci aw turam la sëriñ Abdul sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waxoon kero ba mu feeñee jamono mm-hmm. te bis boobu ñu di ko dëgmal mu ne sun kanam sëriñ Tuubaa waxoon na ci ñaari kàddu bu njëkk ba noon na woon ku man aw turam saw yaram araam na sawara mm-hmm. ba tax na mag ñi daan nañ ko bindulu ci aw kayit ak di wax naan déglu ma ba xam noonu la wala déet mm-hmm. beneen bi ci topp mu wax na it bisam de bu delsee ku ma ca lebal teraanga danaa la ko fay mm-hmm. moom Serigne Touba te kenn nattablu ne Serigne Touba ñemewul bor daa am pay waaye waxoon na ci it ne bala ma laa fay moom it bu ngeen bu fi nekkee dana la fayal boppam loolu it moom firi woon na ko wax ne eh, képp koo xam ne seq na maak yow ay mbir xat-xati jamono jàpp ma ba tax nga ñëw ci man gisoo ma jàpp ne dama laa ñàkk yitte wala nga wax ma mbir fajuma ko ñaan na la nga atte ma ci la njëkkoon a seq. Mm-hmm. kon kooku rafetal na kanamam mm-hmm. rafetal ginnaawam. Mm-hmm. ma bëggoon rek ñu ñëw ci moom. ci tedd ngay jikko yi nga xam ne. alquran moom la tàggee Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Moustapha it waxal na boppam ne looloo tax sun borom wàcc ko ci kaw suuf yónni ko ci nit ñi. sëñ Abdou Lahad am na ay xeeti tedd ne dafa mel ne yàlla da ci li muy seq ak bokk yi li muy seq ak doomu aadama yi ak li muy seq ak adduna bi yëpp lu ci man di doon boo ci jëflanteeg sëñ Abdou Lahad da nga fekk ne borom makaarimul axlaax a ngi nii waaye borom jikko ju rëy a ngi nii. ma bëggoon ñu ñëw ci wàññi googu. <clears throat> yaa ngi eh, laaj wala yaa ngi bëgg nu waxtaane koo xam ne kii mën na maa wax ne eh, neex naa waxtaane ndax ay jëfam dafa leer nañ. ñu mën cee teg ab loxo boo doon gumba it ñu mën laa wax jàppal mi ngi nii waaye nag ku naqaree waxtaan itam ndax nitu nitu yàlla ku mel ne moom dang nga xam dara rek waaye mënoo xam lépp da xam dara kii xam ci dara kii xam ci dara mm-hmm. te ñu saay si rek ci lañuy xam waaye nag euh, ngir ñu waxtaan ci moom euh, li ñuy jëkk def moo di ñu xam ne sëñ Abdou Lahad Mbacké moom ab julli la xaqan murit la woon murit saadix la woon jàmbaar la woon ku gëm sëñ Tuubaa la woon ku ko bëgg la woon ku liggéeyal sëñ Tuubaa la loolu itam bu nu ko waxee mën nañ ko firi mën nañ ko leeral liggéeyal sëñ Tuubaa bi ci jëkk nga xam ne nun xam nañ ko ci mooy dëkkam bii nu nekk tey dëkk bii kenn ku ne xam na ne bi fi sëñ bii ñëw Euh, nii mu yaatoo boobu yaatu wu ni sëñ bi laata ko yaatal yaatal gi itam lam ci jëkk a def mooy wël wut ko wut corniche bi mu wër dëkk bi ba mu ko defee corniche bi mu wër dëkk ba noppi itam dafa jël dëkk yi ko waroon lu mel ne Daaru Manaan ab dëkk la woon boo xam ne village la woon da koo jël taf ko ci biir Touba dugal ko ci biir ba noppee itam mu woote nag murit yi ne leen damaa bëgg nu ñëw dëkk si fii ak sëñ Touba kenn ku ci nekk donte benn puj lay am mu ko seeral yow ma xiyaam ne am na fi am na ko fii ci kër ci kër ci dëkku Sëriñ Tuubaa bi bi ñëpp ñëwee itam mu soog wax leen nag ni ñu war a dëkkee ak Sëriñ def loo xam ne lii ku dib jullit war ngaa sant Sëriñ Abdou Lahad lam njëkk a def ci loolu mooy fexe ba am tux amu fi te boobu foo mën di dem ci àdduna bi ak boo demee ci jàkka man dem naa ci jàkka yoo xam ne yi da ngay ji taxawal kàbbar jël sa paquetu cigarette teg ci sa wet kàbbar julli <laughs> booba tubaab kenn ku ay cigarette amut mu ne nag bu ko fi kenn defati ba tax na adduna bi yëpp fi mu dool nii foo man dem ci adduna bi dañ ko aaye fu nit di daja rek aaye nañ ko ba ca des mu mu ne mboolem loo xam ne lii day taqale nit ak muy sàngara muy am tox muy lu man doon lu baaxut islam nanguwu ko na fi jóge mu daal ne itam am tëggit nangootuma ko ci dëkk mu daal ne itam ak col gu ñaaw goo xam ne gi itam lislaam bëgg ko nangootuma ko ci dëkk bi fexe ba teg ko ci yoon waxam ne ku ko def yoon dana dal ci sa kaw kon liggéeyal na lislaam liggéey boo xam ne ku dub jullit war ngaa sant Sëñ Abdou Lahad xam naa fi ñoo xam ne ñii bi ko sëriñ bi aaye cigarette ci lañ ko bay te xam naa ci ko xam naa la ko wax dafa ne keroog ma ne ma daanaa tux ñaar wala ñetti paquet par bis waaye dëkkuma ci dëkk bi waaye keroog bi ko sëñ laa ne lu mën di xew mën naa ko jéem a bàyyi ca ko bàyyee naa koo xam ne kii bërki démb ma tëgut at wala ñaari at fii la juddoo ci dëkk bi yaroo fi jàng fi ba am bac yóbbu ko université Anta Diop keroog bi mu demee eh, dakaar ci la jëkk a gis nit koy tux fii la juddoo fi la jànge fi la yaroo euh, ba am bac dem Dakar bi mu demee dakaar ci laa jëkk gis ne ci laa jëkk gis nit nit kuy tox kon loolu liggéeyu Sëñ Abdou Lahad la sama mbaago ko jur mi ngi fii mën naa laa wax lépp <laughs> nee na ma keroog bi ma demee bàyyi ma ko wax ne ma keroog bi mu demee dakaar la jëkk gis ku yor ab cigarette di ko tox kooku liggéeyu Sëñ Abdou Lahad la kon Sëñ Abdou Lahad liggéeyal na ku dib jullit waaye si sëñ Abdoulaye yëmut foofu bi mu ñëwee topp fi magam yi fi jiitu woon muy Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim Cheikh Mouhamadul Fadil kenn ku nekk daal laxasaay topp ci yow ba gisatu la mu daal jël laxasaay googu nag laxasaayoo ko li nga wax léegi ne damaa ñëw gont si te fas yéene ña xëyoon duñ mar daal di jël mbubam moomu nga xam ne bàyyi laat lañ ko tuddee ak maxtoom moomu sol ko muy ab tënim boo xam ne man naa la wax ne tënim militaire la ba ni mu fi jógee mbub moom rek lay sol la ca des mu daal mu daal di song nag jumaa ji xoolal kere ba mu laajee un milliard cinq cent million diggante bu gàtt ñu ne ko mat mu ne mat na te am na ñoo xam ne bu ñu laajoon un milliard cinq cent millions bu matee ñu wax ne mat na dañuy bëgg di kon continuer rek xaalis bi ñëw waaye naka mat mu ne kat li ma doon laaj mat na kon jërë ngeen jëf ba ca des mu daal di defar këru téere yi fu xam-xam nekk ci adduna bi jam nañ fa wuti ko andi ko ci biir def ko ci biir sëñ Modou Mamoun yaakaar naa eh, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo yor liggéey boobu mu wut ay eh, móolkaay yoo xam ne yi ñooy móol téere yi nga xam ne mooy téere yu réew mi ñu di ko def ci biir bibliothèque bi mu wut tam koo xam ne kii dana damaa bëgg muy doon borom xam-xam boo xam ne doon am murit ndax lu damay bañ koo xam ne kii buñ ko indee mu di murit ñu ne lu mu wax ñu ne daanukat la wala da bokk nañ ma indil koo xam ne kii du murit su ñëwee itam na jaar ci yoon wi rek moom war a jaar na fa jaar yaakaar naa moo fi la nekk ba retraité waaw kon euh, sëñ Abdou Lahad daal di sémb nag euh, université bii ñuy wax tey jii sëñ Muntaxa taxawal ko tey Eh, yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko maanaam li ci gën a kiimaane mooy bi xoolal xalaat bi bi mu koy xalaat université bi mm-hmm. bi mu koy miir waxuma la waaye li maanaam espace bi nga xam ne moom la dakk ni mu xëree mm-hmm. nga xam ne tey bu ko defoon lu tuuti kon tey ji du xaj fee nga xam ne kon xamoon na ne ëllëg yi si biir lii may tàmbali dana am ku ñëw te dana ko defar mm-hmm. kon mën naa maa wax ne jëfi Sëriñ Abdou Lahad ci yoonu murit wala ci lislaam buñ toogoon fii ba suba du ko limitam yaakaaruma ne danañ ko danañ ko danañ ko danañ ko danañ ko mën a jeexal. waaw waaw waaw. jërëjëf mm-hmm. euh, jërëjëf sëñ Abdoul Aziz. Mm-hmm. yaakaar naa ne li nga laytaaye waxtaan wi. Euh, mooy sëñ Abdou bi mu ñëwee. Uh-huh. dafa mel ne rek loolu yonent bi alayhi salaatu wa waxoon ne inama boo istalee utamima makaarimal axlaaq. Mm-hmm. tedd ngay jikko mënoo ko am mu ne da ngaa mbooleem xeeti ñaawteef yi. moo tax sëñ Abdou Lahad li a def mooy raxas ndab yi. ndab yi mooy xol yi. Mhm. fexe ba loolu nga wax ne euh, tux. Mhm. ba mu koy aaye kenn aayeegu ko ci adduna bi. waaye sun borom moo dëgërël dëgëral doom mhm. bi mu ko aayee la ñu dem ba mu yàgg adduna bépp maase ci ne mbooleem place publique yi mayatuñ kenn mu fi mu fi tux. kon défense de de fumer ginnaaw bu ko sëñ Abdoulaye waxee nga ko tàmbalee gis ñu koy bind ci <laughs> bureau yi ak yeneen yi ci aju. kon loolu sun borom dimbali na ko ci. beneen bi topp njariñ li ci nekk mooy xam ne ne tux day yàq nit. waaw nga mu fexe ba nit ki am santé. wér-gu-yaram goo xamante ne bii duutu ànd ak euh, bàkkaar mhm. loolu sëñ Abdou def ko ci mhm. xam na itam alcool lu yàq lay doon mhm. daa mel ne ni yonent bi doon jàngalee bi muy soog a ñëw ci diine rek nga xam ne xëyit xëyit ne saxaaba yi bàyyi leen nangam ak nangam kuy bëgg a julli du def nangam kuy bëgg a julli du def nangam bañ min ko mu xëy na leen bàyyi leen ko daa ne yoon woowu rek la sëñ Abdou Lahad ba xëy taxaw nag ne mayatu ma nag ku def nangam ba indi ay gendarme indi fi ay xaj. Mhm. loolu booba xam na ne bàyyi gi mën naa nekk. Mhm. loolu kon ñëw nga ci eh, liggéeyub Sëñ Abdou Lahad lu am solo la waaye yow ku taxawoon ab ak Sëñ Abdou Lahad nga man nituk Sëñ Abdou nga xam ne Sëñ Abdou Lahad moom kum jaxasoon moo xam nga di jullit wala murit wala kum jaxasoon rek dana mujj récupérer ba ci yéefar yi sax dañoo mujjoon nangul Cheikh Abdou Lahad. Mhm. waaw waaw xam nga euh, ma ma àggale ci tuuti ci ci liggéey bi euh, poste de santé. xoola boobu fi mu bi am fexewoon na ba mu am fi te boobu yomut ba ci des mooy poste téléphone mm-hmm. boobu téléphone bi ab poste rek ngay dem boo amee téléphone ci kër sax dangay xëy 8 heures nga laaj euh, post ba poste ba laajal la post ba kooku soo ko laajoo kër gi nga soxla mm-hmm. fexewoon na boobu ba mu am fi fexewoon na itam ba forage am fi ndox mm-hmm. boobu itam fexewoon na ba am fi waaye nag loolu lépp bi mu jàllee nga xam ne mën naa wax ne dëkk bi eh, lam ci war a def lu ci bare bare bari def na ko lenn li tàmbali na ko xam na ne am na ñu ñu ñëw di ko def mooy comme li ma wax ci université bi li ma gënoon jaaxal mooy jëmmi boppam nga xam ne li ma gën a seetlu ci moom mosuma fàttali ko fu sañu blaat toogee ci lal mu toogee ci lal déedéet moom tëdd toog toog toog ci lal soo ko soo ko soo su su su ma saan guddi ma saan jot lal bu mag bii nekk ci néeg bi bu toogee ci mbaar mi ci biti nii bu layee mu dugg ci mbaaram mbaarum seng ma bu ci duggee moom sañu am satu sëñ Modou Mamoun Niang sëñ Abdoulaye Karam léeg-léeg ku ñuy wax may sa sekk Abdoulaye Hat Fall bi nekkoon bëkk néeg bi bu toogee toog toog léeg-léeg ba ba quatre heures di bëgg a jot mu ne nan dugg ci biir bu duggee ci biir mat laa bu ndaw bi ñu koy indil moom lay tekki bopp lal bi jël nga naa tekki di waxtaan su bu bu sonnee sonu bu fa bu bu bu fajar jotee bu julee wéy na booba itam belal àggoon na ci yooyu dama naan boo boo boo boo defee nii da nga téye lu bare bare la ci yoo yoo yoo xam ne day yuuxu di jooy lu nañu di ko def te moom du ko yëg nee na dégg ko du ko yëg dégg ko mu ne moom bu ñu ko waxee mu ne yëgut yëgut yuuxu gi yëgut matt ki te boobu man àgg na foo xam ne fi yow da nga naan moom daanaka dañ lay sam-sam boo xam ne yow sax eh, eh, daanaka da ngay dóor a dóor ba bëgg waaye mënoo ci dara te moom yëgut yuuxu yuuxu jooy yoo yi yow yi yëgut matt gi mu koy matt doo dégg mu ne mu nekk ci dara xalaat ko waaw ba ca des sa moo di sécurité bi nga xam ne andiloon na ko noonu murit man Abdoul Aziz wala ma nekk Italie wala ma nekk Amérique wala ma nekk Espagne wala foo mën nekk ci adduna bi te di murit yaa ngi may xel sëñ Abdoul xam nga ne boo defee loo wërta def dana wax yow wala mu wax ak kilifa ak foo mën a nekk ci adduna bi yaa koy bàyyi xel waaye nag yaa ngi koy bàyyi xel itam ne buñ la tooñee ak foo mën nekk ci adduna bi bu ko yégee dana dana ko lijjanti. loolu kaaraange la. waaw kaaraange la. Mhm. loolu itam yu baree bare mën naa la ko jëli jënd. Mhm. Mhm. yu baree bari yoo xam ne xam naa ko ci. mu def ko ci. moom sëñ Abdoulaye moom sëñ am na fa boo xam ne bii ñëw na daaru ay yoon te yoon bu ci nekk buy ñëw sëñ Modou nga ci dëkk bi te balaa ñëw di ñëw ci sëñ Modou daal lijjanti la ba nga soog ci sëñ Modou. te loolu problème mu daaru lay doon. problème mu daaru lay doon ci njabootu daaru. njabootu daaru lay doon pour war na leen njabootu sëñ Tuubaa gi mi ngi ci loo xam lépp am na boo xam ne bii dañoo jël euh, ñi fayut seko dugal leen ci biir seko bi jël poudre poudre ko ci gouverneur bi jógee Louga ñëw taxaw ñu poudre euh, seko bi dugal ci nit ñi bi mu ko yëgee daa taal otam ba ñu ba ci ba ba ci seko bi mu taxaw woo suñ ko sosloo woo gouverneur woo préfet bi ñu taxaw mu ne ubbi leen bunt bi ñëw di bunt bi ñëpp nañ génn. soo ko dem ci soo ko dem ci moo daa bal def na ko ba noppi soog a àgg sëñ soog a dàgg Balla keroog bi ñu yóbboo sëñ Modou Awa Balla Louga coow li bari lool man dama xëyee Louga man ak sëñ Koso gannaar sëñ Koso Gànnaar nan nag ba suba ndax wax ji daa bari bu subaa nag bu dara xewul ñu toog a dem nu xëy suba nun taal suñu oto boobu ngan gi mujj gane ci sëñ Louga ah, mooy ngan ngan ko yóbbu ngan ko yóbbu ko yóbboon Louga mhm. ndekete sëñ Abdoulaye moom xëy na sub fajar dem di ko jëli ko waaw jëm jëli ko jëndi sëñ waaw bi bi ñu tollee ak euh, Ndoyeen laa ne euh, sëñ Koso mun naa ma ne ko oto bii di oto sëñ Blaat ab dees mhm. mun naa ma ne ko kéema seen ci gannaaw it mooto Modou mu ne ah rek ma ne ko ko ñu wàññi ko di ko top di daw di daw di daw ban accès ci bi ñu bëgg a tourné gendarmerie bi ma ngi sëñ Blaat toog nii sëñ Modou Awa toog nii sëñ Modou Awa Balla ngi ci droite bi mhm. sëñ bi tooñ euh, toog ci kii bi ñu agsi ñu daal di ñun daal di jàll kër sëñ Koso gannaaw summi ko mhm. boo ci bi mu agsee Louga dafa ànd señ bi ñu ne ko sëñ bi dee ngi ci néeg bii mu ne ubbeeku mu daal ne ñun ñu bëgg a nuyoo mu ne nuyoo andiwuma fi ñu daal koy jox ab mu toog buntu néeg bi. buntu néeg bi sëñ Modou Awa Balla sëñ bi daal muy xalifa daal muy. waaw boobu yàggut yàggut loolu yàggut. toog toog toog toog bañ bañ bañ wax sëñ bi ne ko sëñ Abdou Lahad ñëw na mu ne sëñ Abdou ñu ne waaw ne ko mi ngi ci biti mu ne kon ubbi leen buntu bi na ñëw ñu ubbi buntu bi sëñ Abdou Lahad daal di ñëw dugg si nuyu ko daal ne ko ah, sëñ Tuubaa di dama yabal na naa la jël si da ngay sama kilifa nag néewu ma la tey la néewu ma la ngoon la néewu ma la suba la bu sa yittee mag rek rek mën nañu maa ngi toog ci biti di leen di leen xaar nag. la ilaha illallah. daal di génn ci biti kooku boo nuyu mu ne nuyoo nuyoo andi ma fi léeg-léeg sëñ bi ne ana ana ana mu ñu ne ko mi ngi toog mu ne defar leen bagage ñu defar bagage yëpp yóbbu joxoto bi mu daan ne wolu leen ma alaaji Modou Fall mooy ma magee ma Fall ñoom ñi mhm. ak Touba ak famille bi yëpp ñu ñëw mooy leen sant leen suñu borom tabaaraka wa taala mhm. am ngeen tey loo xam ne kenn amu ko ci yoonu murit mhm. li ngeen bëggoon lépp sëñ Touba defal na leen ko xalifa sëñ Touba doomi sëñ Touba nekk ci kër gi ma ñëw fi mu fekk ma fi loolu doon na sëkk kon nag li ngeen fi doon def lépp def leen ko addi sëñ jox leen ko nit ñi te xam ne li ngeen bëggoon am ngeen ko la keroog bi mu agsee dafa agsee sañ bi dugg ci néeg bi mu daal di tëdd sonn ci suuf si ñii suuf suuf la tëdd daan nañ ma wool sëñ Moussa ñoom ak waa kër gi yëpp sañ Kosa ak sëñ Bachirou ak sëñ Fallou ñoo ñëpp ñëw ñoom ñëpp ñëw nuyoo toog mooy leen gis nga kii maytuma kenn ku ko jëli fii daan na kii mun ne mu ne leen ndaa la ndaa nag da koy fekk fa mu nekk nga tànk naan waaye kenn du ko yenu du ko yóbbu barke alquranul karim la ilaha mu jële ko fii waaw beneen ba ca des sëñ Mahmoudan sama mag am na boo xam ne bii dañoo jàpp otaam diggante daaru Rahman ak daaru booba coow li bari na ci lool ndax euh, procureur bi kon commandant bi fi nekkoon moo moo moo gis oto bi xale bi ko yor de xale bu ndaw rëyut kiiwut amut permis xam naa wala boobu oto bi it venant de France la boo xam ne bii amagut ni matricule mu yóbbu ko ci sàndarma mu jox leen ko dajee procureur mu jógee Louga mu mu wax ko ko mu ne ko mu jaar daal di bind kay ne nañ ma indil borom oto bi ak oto bi. te Louga. ci de Njaaréem boobu benn région la. Mhm. léegi euh, dëkk bépp taxaw ne sëñ Dan bu ñu ko bëggee indi moom dañuy song sàndarma bi. léegi si ko sa gànnaar ñëw wax waa ji mu bañ mu dem ca procureur boobu ko ñëw Aliou Diouf. Mhm. mu dem wax ko ko. Mhm. mu ne ko duma ci wax benn baat te indiluñ ko ba pare. señ bi ne ko te ngaa def li mu wax mu ne ko déedéet man daal bala maa mën a wax daal nañ ma indil oto bi ak borom oto bi ba noppi sëñ ko daal ko ñëw ànd ak eh, sëñ daan sëñ daan nga muy ànd ak mooy xamul ni kee sëñ daan mm-hmm. mu ne naa jaar ci sëñ wax ko ko ndax lii mën naa andi jéyee ju mag mm-hmm. mën naa andi eh, ab xeex bu rëy rëy mm-hmm. wax ko sëñ Blaat sëñ Blaat daan ne ana Mahmoud mu ne ko toogal nii ku lay jàpp boole laa sa bàyyi jàpp toogal nii ku lay jàpp wala ak sa baay jàpp waaw daan ne wol ma euh, sëñ Modou Mamoun Niang ñu woo ko mu ñëw mu ne wo wool euh, Bàcc Guèye mu ñëw mu ne ko àndal ak Modou Mamoun mii ak yóbbul ma leen ak sa koso mii daa boo demee nag si Modou naa mu ne ko neel procureur lañ waxantoo bu ci génne na ma ko wax yemal foofu bi ñëwee wax ko ko mu ne ko yow euh, koso def nga lu lu erreur ndax fi mu doon sécurité danañ bind ne ma dama am problème xalifa bi mu ne ko defuma erreur ndax ba ma la ñaane da ngaa bañ te fee mu naa mu ne ko dama la dimbale ndax xeex mënoon na fa am bu rëy te kon cépp la ñëw mu ne ko waa kon léegi léegi jeex na man danaa danaa téléphoné danaa wax ñu bàyyi leen mu ne ko bind ko ba ma bind jox ma bu ma demee ñu bàyyi ko mu daat koy euh, bind ci kayit daan ne ko mi bind mu ne ko daan ne ko ah, sa mbind mi sa mbind tuuti tuuti ak am doole mu ne ko ki ko tax bind tax am doole moo la ëpp doole waaw ndax ñaanoon naa la ko nga bañ <laughs> kon kon kon kon mën naa wax ne euh, euh, sëñ Abdou li ci gënoon li ma ci gënoon a yéem ci xilaafa ki mooy nit kenn koo xam ni kii maîtrise nga ko xam ko amul. moom déedéet. ku la man naa koo téye mën mën ma intermédiaire boo xam ne mën nga ne boo ma jaaree fi jox ma ñaari junni mu yóbbu la ci ñebe mas ngaa gis benn doom boo xam ne bii ba mu fiy nekk doom joojee boo fa jaaree wala boo ko defalee nanga wala yooyu mu mu intervention mu defal intervention ci ñebe ñoom dañ leen a miinut sax ci xilaafa gi. ndax ma koo gis. déedéet. bëkk bii nga xam ne moo fi nekk. xamul fu Sëñ Abdou Lahad fu mu fu muy jëm bu bu nee bërët di dem day waaxu buti buntu ba rek nga xam ne buntu ba la jëm nga ubbi ko mu jëm ci bee nga xam ne day ubbi ko mu wuti penc mi <laughs> su bu nuyoo ak mbooloo mi ba noppi daal dem toog fee wal ma euh, diw mee wax ak moom wal ma diw mee wax ak moom waxu diw ba ñëpp jeex ba mat. kenn du bu mu paree mu daal di ñaan bu ñaanee oto bi ñëw taxaw ci mu mu daal di mu daal di mu daal di départ. moom mii tamit du xam fu mu jëm danaan awal yoon sangam rek léeg-léeg dana agsi naan kafe dara wala mu naan dox képp toog tuuti daal di wàññi ko jaari cëllal wala mu dem feneen ñaan yaa koy wër moom léeg mu jógee fi ñëw Touba toog ab diir ñu ne bi ñëw na mu delluwaat belal nga xam ne kenn koo xam ne kii mën ngaa mën nga mën ngaa fexe ba métti xam sëñ Abdou Lahad bu wér a wér mun xam amut xanaa xanaa loolu dana firndeel baat ba mu doon waxaan du may kenn sans bopp ba fa malaam daj ma ci poosam ma waaw kay waaw waaw man li ma li ma la xam mooy njàmbaar gi bëgg gi sëñ Touba ak téye yoon yëpp nag gis nga bi mu soog a doon xalifa ah ku ñu ah, ah, Cheikh Samb moo yoroon bayti dafa ne ma sëñ Abdoulaye dafay ñëw Madina di seet sëñ bi indaale ko appelier naka mu génn mu ne ma xam ngeen kii ñu ne ka ah, kooku di mooy sëñ bi laata mooy xalifa mooy xalifa ma ne ah, waaw waaye loolu da ngeen ci xam mu ne ah, ah kooku de yoonu sëñ Tuubaa yi bu fekkoon ne ak màggat la dana ko yóbbu ba mu nekkaat ci waxande wax wax nu ñu koy waxan waxan mbaaneew fanweeraat wala ñaar fukki at wallaahi laxim Cheikh Sam moo ko nettali booba lay soog a doon xalifa ñëw fekk ko Madina andil ko ab piliyaan biñ génnee mu ne xam ngeen kii ñu ne waaw moom rek mooy sëñ Blaat moo fi mu ne mu ne mu ne mu ne da ngeen xaw mu ne mu ne yoonu sëñ Tuubaa wii de bu doon mag la ak màggat la dana ko andiwaat ba mu demaat fan fanweeri at wala fan ñaar fukki at ak juróom. la ilaha <laughs> xam naa ci itam ne moom mel na ne xëy na xëy na euh, xamoon na ko ndax euh, bari na ñu ma xam ñoo xam ñoo xam ne ñi moo leen tuddee am na fi ku ñuy wax karaandoo dafa ñëw ci sëñ moodu ne ko dama am mm, ay ñaari kii dama am ngénte waaw ay ceex waaw mu ne ko mu ne ko ana ñu mu ne ko ma nga fa mu ne ko luñ doon mu ne ko góor mu ne ko defal Abdou Lahad ak Modou Awa naa Abdou Lahad Abdou Lahad sëñ bi xaritam waaw ba ci ba tey waaw waaw kon mën naa wax ne eh, sëñ Abdou Lahad képp koo xam ne kii ab jullit nga mm-hmm. te jullit gi di dëgg ci yow mm-hmm. war nga koo sant war nga koo gërëm. dëgg la dëgg la xam ne kii am murit nga. Mhm. war nga koo sant. Mhm. war nga koo gërëm. Mhm. ndax nun de mën naa wat yàlla ne. defal nañu ci sëñ Tuubaa loo xam ne lii. teg nañu ci yoon woo xam ne nii. ah ma néew ma eh, am na ñu ko defal de waaye. man de wax yàlla man gisuma keneen ku ma ko defal ndax xëy na li ma jege woon ko. ak xamoon ko ndax su am sëtu ma nekkaloon. Eh, ak li ma xam ci moom moo tax. waaye nag fii mu tracé yoon wi teg ko fi. ak fi mu nu jaarale. ka kawe na ci ñun kawe na ci ñun njort. xam naa ne eh, képp koo xam ne kii eh, fam la jaarale woon ak fam la doon teg foofa nga foofa nga foofa nga jaar. doo doo doo doo doo doo jaaxle mukk. jërutu itam keneen di la wax dara. dëgg la waaw. Eh, jërëjëf sëñ Abdoul Aziz moom sëriñ Modaw Balla jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy ci seen télévision Lamp Fall TV. jataay bi ñu ngi koy amale fii ci kër sa Amsatul Xadim mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké eh, jërëjëf sëñ bi dafa mel ne bu dee ci jëflante rek andil nga ñu Cheikh Abdoul Ahad ginnaaw boo ñu indilee Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo jiitu ci ndab yi raxas ko ba tey jii ndax ndab yi set wicc ba Cheikh Mouhamadul Mountakha li mu bëgg lépp mu mën koo am ci ndaw ñi yaakaar naa ne fi mu ne bu ñu xool ndaw ñi jub ñoo ëpp fuuf mag ñi jub. Mm-hmm. te loolu liggéeyub Cheikh Abdoul Ahad la damay wax ne ku dem ba université boo xoolee ziare barki démb bi Hizbut Tarqiyyah bi ñuy ziare. Mm. sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa moo xam ne ay boroomi licence ay boroomi doctorat ñoo xam ne tey jii 1968 ku ku yeewoon professeur ya nekk ci université ba ne leen des na diir bu gàtt bu sëñ Ablaye noppee ci ñii ay jànkati xasida fi nekk ay ay ay ay ñuy sol ay baylaata fi nekk. Mm-hmm. ñuy nangoo ay watu ay nela fi nekk. ñuy nangoo sàmm ak baye ñoo fi nekk dañ naan loolu mënta am. Mm-hmm. te loolu liggéey Cheikh Abdoul Ahad kon kuréelu xasida yu bari yi. gone yi koo gis mu bëgg a jub koo gis mu bëgg a baax ko gis mu mu tege ci aw yoon yaakaar naa ne eh, bu sëñ Abdou Lahad raxasutoon ndab yi lu mel noonu du mën a am kon loolu doyoon na ab liggéey ci diir bu mu nekk sëñ Touba waaye indi ci ak jëflante nga xam ne bi mu toogee eh, loolu mu waxoon ne lépp lu sëñ Touba gërëm danaa ko teg seen loxo waaye lu lu mu leen jege jege te lii sëñ Tuubaa gërëmu ko danaa ko sànni ba dut leen ko gis liggéey boobu liggéey na ci liggéey bu rëy loolu mooy jël responsabilité ci yoon wi yilif leen. Mhm. mooy yilif yoon wi loolu dafa am solo. nangoo yilif nit ñi ba noppi yilif leen. Mhm. téye leen nag. Mhm. loolu moo koy may mu dégg ku mel ne sëñ Modou Awa Balla dem Louga mu xam ne kii wër ta déplacé wu mu am fayda ju toll ne bàyyi yitteem yëpp taal oto bi dem na ko nag sëñ Touba mu yónni ci yow. Mhm. ba noppi nag joxaat ko cërëb kilifteef bi mu am na ko nag du mën a la tey ngay ñibbi wala suba waaye maa ngi ci buntu bi di la xaar ku duggut ci néeg ca ñibbiwut te di la xaar moom ala kulli nga génn faaw nga <laughs> moo tax sëñ Modou Awa Balla na kon nañ càkk bagage yi waaye gis nga responsabilité bi mu jël ba mu ñëwee wax leen ne ndaala lu sedd guy te duyu ndox ndaa nag kenn du ko déplacé da ngay mar ñëw ci moom rek tànq naan yaakaar naa loolu jàngale na ci ci àdduna bi lu mat sag boo masaa tooñ it kenn mënut tax mu fay mm-hmm. far la ci tooñ bi mm-hmm. waaye nag buñ la tooñee it mm-hmm. ku yàlla bind mënut a tax ñu duma la kon loolu yaakaar naa ne jël ay matuwaay la jël ak ay responsabilité waaye gis ñëw nga ak ñun ci yu bëree bëri waaye gis nañu sëñ Ablaat bëgg gi sëñ Tuubaa bëgg gi xasida bëgg gi alquran yéen ñi taxawoon ak moom day mel ne sëñ Ablaat làmmiñu daawul selaw ci ta jàngi xasida ba àgg ci sax daana ko yëkkatil boppam mënoon nga mhm. ñoo dikkal foofu digganteem ak sëñ Tuba ndax daana ci waxtaan lu bari waaw ndax ndax loolu moom lu moom daanaka mën naa wax ne itam boo xoolee bi muy soog a euh, doon xalifa sañ ci kër gi booba rajo yombut ay rajo yu mag la defoon ci biir kër gi ay rajo haut-parleur ñu def ko ñeent mu jëm waxtu wu ne bu timit jotee bëpp ñuy tëdd alxuraan jaa ngi jolli moom ci boppam itam daana yëkkati yëkkatil boppam xasida boo déggee waxtaanam itam ni muy taree xasida yi ngeen xam ne kii lu lu lu lu yàgg a jàng la mokkal na ko waaw ba ca des sa moo di dafa jëmbataatu ci ñun ci jikko yi mooy ay ay tappale da da koo bañoon tappale mm-hmm. nangu ci woon dara Euh, dafa am koo xam ne kii dafa daan ñëw rek bu ñëwee ba ñëw ne damaa am ngénte sëñ bi ne ko waa baax na toogal kon te déglu mu toog toog bañ ne suba la wala gannaaw suba la muy soññiwaat sëñ bi sëñ bi ne ko demal toog te déglu ma rek ndax bu bu bu jotee naa la jox oto bii luñ ci war a def dinaa la ko defal ba dee nga tudd ko te moom day fen mu ñëw nag ci suñu am sëtu ne ko ñam am sëtu mu ne ko ah, man de am problème am na. mu na ko lu xew mu ne ko la ma doon wax sëñ bi de dara du ci dëkk bëgg lu ma am rek te nee na ma bu bu subaa wala a suba dana ma dana ma dana ma boole oto bi bu ñu demee ñu tudd te dara néew fa mu ne ko ah sëñ am sëñ ne ko ah, de moom dana ko li ma xam nag mu naa mu ne ko nga wax ko dëgg gi gu gàtt de moo gën gudd demal nga wax ko dëgg gi rek lu dul loolu. li mu la wax bu soo yàlla dana dana te dana ba ci kër ga duñu fa gis dara. mu dellusiwaat ci sëñ bi ne ko man de la ma doon wax dara amu ci dama bëggoon lu ma am rek ak ñaax jaaxle doon sàkk ni ma ay waa ji lu ko jar nit ku baax du fen yow boo dee sàkku ndimbal sàkkul di waxal ni mu sàkkul ndimbal rek waaye man du ma ci bul ci kéeti bul ci fana ti jëru ko soog koo dimbale mu dem waaw beneen ba ci des euh, kale doon jaañ moom ko nettali kër ci kër sañ ko sasuloo nee na ma Senghor dafa am at moo xam ne daa naqari lool dara amut ci réew mu jox ma ñaari million boole ma ak ndiw ndiw fàtte naa ko ne ma yëtal ma ko sëñ Abdou Lahat ne ko boo demee ne ko maa ko dimbalee ci at mi ndax at daa naqari te ñi koy laaj bare kon ma dimbalee ko ci loolu ngir ngir ngir eh, nit ñi nga xam ne ñoo koy laaj nee bi ma ñëwee waxtaan ak sëñ wax ko ko ba àggal bëgg ubbi kii bi di ko ko jox mu teg ci loo xam na taxawal mu ne boo demee ne ko man de lu may yére ma ci ak lu may dimbale laa xamut ndax man de sama jëmm ji lu ma soxla Sëñ Tuubaa defal na ma ko fii nag ñaar doo nga fi ñëw kii dafay ñëw di ma laaj ci ngir jëmmi Sëñ Tuubaa kii di fi ñëw di ma jox ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ma jële ci kii jox kii xool amu ci coono amu ci coono kenn doo nga ma jaaxal de kii di ñëw di laaj ci te li mu laaj ci fekk ko fi te mun te duma def dara lu di ko seetaan te mënut a waaw te du ma def dara lu ko seetal moom ñëw na di seet di wut si te lii muy wut si fekk ko fi te mënut a muñ kooku na dara laa du di ko seetal rek te te te nag eh, sëñ nit la koo xam ne kii li ma la waxoon nela la eh, foo mën di nekk ci àdduna wi te di murit Euh, yaa ngi yaa ngi ci sécurité boo jubee soo jubuti itam na leer ne loo def bu la mënta jot fi saas dana jot si kilifa am na benn ministre de boo xam ne bi biñ ko nomee daa ñëw di ko nuyu si muy ji bokka mën naa ko tudd ba mu ñëwee wax ko ne ko ñu wax ñaanal ko yu mel ne sëñ bi ne ñaar de laa la a jëgal mu naa mu ne yoonu sëñ Tuubaa wii njabootu sëñ Tuubaa gii ak dëkk sëñ Tuubaa bii ma la nga jaar ci sama gannaaw nag sàkk ci bi mu koy waaw loo ci soxla nag bu dee ku tooñ ñëwal wax ma ko bu dee ko ñu war a joxe dinaa la ko jox bu dee lu ñu war a wax dinaa la ko wax waaye nag jaar jaar ma jaar ci gannaaw nag jëfandikoo lool loolu moom mayuma la ko waaye bu dee ko tooñ ñu war koo joxe dinaa la ko jox bu dee lu ñu war a wax it dinaa la ko wax. Ah. xoolal boobu sécurité. mooy li ma la wax léegi ci ci ñi ci ñi ñi ñi amoon waaw te at am yoo xam ne sax doo doo eh, ci mën a eh, kii noonu ndax am na yeneen yoo xam ne yi waaw ndax eh, bi bi bi bi problème amee ci diggante sëñ Ousmane ak pël ba mu ñëwee itam rapidement diggante bu gàtt ko lijjanti. sëñ Ousmane ay njuumte rek am ñu jàpp ne maanaam pël bi da doon dafa ñëwoon doon seetaan ci sëñ Ousmane itam football football nawetaan yooyu. Mhm. Euh, sëñ Ousmane itam ay dongaam nekk fa xeexoon fa mu jël si waat fa ci suba sa ñu ne ko donga yee dem nañ fa mu ñëw di leen aaye si leen jël si gaari oto bi nit ñi daw yaakaar day day aaye football bi hmm. bi moom téye jaaseem jël position pour ne bëgg xeex hmm. sëñ bi téye ci ponk bi jaay nekk jaay si daa ba dagg na kii bi bi mu ko xëccee eh, loxo sëñ bi dagg eh. nit ñi daan ne cor na sëñ bi eh. coow li am ñun ñi kenn xamu ci dara ñu daal ñu daal di rey pël ba ndax diñ ne cor nañ ko waaye diggante bu gàtt la sëñ bi ñëw. sëñ boppam. mu ñëwal boppam ñëpp a ngi def enquête di bind. mu ne ana ana ana ana ana ñi woo ñi enquête ñu woo leen mu ñëw mu woo kilifa yi ñu ñu teew mu ne yéen lu ngeen bind ñu nekk diw de ak diw ak diw diw mu ne ko effaateel mu ne ko effaateel mu ne nii mu ne ko effaateel mun ne ko bindal Daaru Muxti Daaru Muxti gépp ko rey bu ñu tëj nañ tëj dëkk bépp. barke alxuraanul karim pël bii de bu rawoon da ngeen am kersa lool. dañ koy kilifa yi teew ndax lu toll ne dërët borom daaru doomi daaru borom daaru ku ko génnee fii bu fekkee ne bàyyi ngeen ko woon dem na rek lool rëy wut waaye bëggoon nañu yar ko waaw rëy moom nit ñi ëppal de waaye moom rëy lu wut waaw waaye nag moom maanaam ba ñu déggee ko ne daa rey lu nit ñi déedéet. daa bëgg ñu loolu déggoon nag baat bi sëñ Amsatou doon wax naan sëñ Saliou nee na. bu ab murit bu demee ba gis loo xamante ni bii lu daal ci kaw sëñtu Tuubaa la la koy faj ca la war a nekk ba la ko cay fekk fekk ko ca. <laughs> waaw waaw waaw kon daal kon man maanaam li ma ci gënoon li ma la di wax nii maanaam ñaar ma seetlu ko ci. Mm-hmm. ay nelaw maa gis mu di ko def. musuma gis mu di ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. gis itam mu toog ci ab lal. wax ma la tëdd. Mhm. mësuma gis itam. maanaam kër gii mu nekkoon boo demee dañ naan seex Cheikh Modou Batar néeg nangam néeg nangam ku fi ñëw da ngay yor meen mbubb wala ñaari mbubb wala nga ñëw fi kap di ko nuyu mu yabal la ci ne nga toog da nga fi am ñaari weer la ñetti weer. ñaari weer wala ñetti weer ci ay kilifa la boo ñëwee dala yabal fa nga toog rek. waaye ñi mu fi daan téye ñëpp nag ñi mu fi daan téye ñëpp nag. Mhm. bul yaakaar ne dinañ fi noonu dong de am na lu mu leen soxlaa. te bu la soxlaa du la mooy ñëwal boppam wax ak yow dugg a génn a dem. diir bi mu la fiy téye. da kenn du xam ne dool suñu aadara téye na ko fi lu mat ay ay weer. téye na fi ku ne. Hmm? waaw. nga xam ne waxtu ñëwal boppam wax yow dem te bu ñëwee ñi génn mu wax ak yow li muy wax yow dem kenn du ko xam. tet tet tet tet kookoo mën a gouverner. kooku sëñ beneen beneen beneen mbir la <laughs> beneen xam naa day mel sama caméraman mi ngi may signalé. waaye yaakaar naa ne fii waxtu jeexee bu bu ko fa dogee auditeurs yi daañu ma xaw a duma. <laughs> waaye rek euh, lii rek lañ ci jublu woon. mu doon Serigne Abdoul Aziz Mbacke moom seriñ Serigne Moudaaw Balla doonoon ko taqoog ak am Amsatou taqoog Cheikh Abdoul Ahad Mbacke indil nañu fi yaakaar naa ne ay qualité ci Cheikh Abdoul yoo xamante ne bii euh, des na ci war a mën a jàngewaate lu bëree bëri rawatina nag ni nga xam ne ni la Serigne Abdoul Ahad daan yilife nga xam ne état ko yab njaboot gi duñ duñ duñ duñ bew yaakaar loolu nag lu am solo la mooy équilibré fexe ba sax njaboot nga yar leen ba duñ bew waaye état du la doxe ginnaaw ba di la yeb mm. te léegi liy xuppe daa bari surtout nag ñi nga xamante ni bii dañuy menacé ndax day mel ne yii may seetlu léegi nga dañuy attaqué yoon yi di ko menacé jamono Sëñ Abdou Lahad kenn ñemewu ko woon mm-hmm. waaw mm-hmm. ñaari euh, moom loolu kenn mosu ndax dana ko fajal bopp fi saasi du ko faj a xeex waaye dana ko faj ay ay jëf maanaam ba noppi itam fonk gi mu fonkoon doomu aadama ak ndimbal loo xam ne bu la doon jox tey bu la joxee nga yow yow yow sa mbir yëpp aaju fajo mm. maanaam bu bu bu xasee bay def du def lu ndaw. nam toll rek lay defe am na koo xam ne kii dafa mas a ànd ak euh, sëñ Sambay dem benn conférence Kaolack bu ñu defee euh, waa ji leen doon def lu conférence bi mu moo leen yónnee woon oto nee na bi ñu noppee ma ne ko tee ngaa euh, wax waa ji mu wutalaat oto mu ne ma déedéet. bàyyi ko rek nu ko joxee baax na bu nu ko joxoon ñu paas oto yi dem xam nga sëñ mu baax gi nee na bi ñu noppee waa ji waxul dara ci oto bi ñu paas ñëw njaareem bi ñu ñëwee nee na ma dañoo jël ci oto yi mbak ci baas yi xeet yi ñëw wàcc garaasu euh, Touba léegi nag jëm si nag garaasu Louga bi nee na ma mu ne ma nañ jaar ci ñëpp daal siyaare ko bi ñu ñëwee ñu nuyu ko ba àggal mu ne ma foo demoon ma ne ko Kaolack laa demoon damaa demoon ci wax waa Bagal nee na ma keroog 2 millions la jox sëñ sëñ sëñ ñaari millions. ci jamono jooja jamono jooja waaw ci jamono jooja waaw. nga xam ne moom lu muy mën di def ak koo mën di doon man fàttali na ko ba tey mu indil sëñ Modou Awa Balla téeméeri bëri koy pepp téeméeri bëri ko ñi fi nekkoon ñëpp itam kilifa yooyu ngi si yëpp itam amu ci kenn koo ci xam ne ki oto ko doon jox. na itam yoo eh, xam ne wax yi mën nañu ko kii eh, am ndax na oto Mercedes boo xam ne bii bi fi Alaaji Njóogu di jógee. la ko jëndoon andi ko fi biñ gannaaw lañ ko jox jox ko suñu blaat eh, oto boobee mosu jee dugg Alaaji Jili Mbay la ko. Mercedes boo xam ne bii dañ ko commandé woon. alaaji Ndiouga commandé woon marché boobu alaaji ji li da ko mayaa yaakaar naa bongo lañ ko may mu dem mujjoon présidence bu Gabon ci la mujj la ilaha illallah hmm. kon daal mën naa wax ne Sëñ Blaat daal waaw hmm? ah, mu nga damay koy bañ dama bëggoon a xool ba xam nu mel rek waaw wax ko bëgg ko commande ak yooyu sëñ bi boole ko essence ak ne ko jël ko dugg ci ba tey waaw kon kon kon kon man daal xam naa ci moom waaw loo xam ni daal moom man daal def ma marqué lool. waaw maa ngi ñaanal yàlla subhaanahu ñaan yàlla subhaanahu wa taala sëriñ Sidi mi fi nekk ak njabootu sëriñ Abdou laxat képp yàlla bàyyi leen fii yàlla may leen wér yàlla may leen kattan may leen wërsëguñ mën a liggéeyal seen baay man de ah xëy na doomi Sëriñ Tuubaa yëpp nag yépp baax kenn ku nekk koo ci xam jaxasoo moom xam ne kii am na lu yàlla def ci loo xam ne bëriwut ko nit ko def waaye nag ki nga gën a xam moom nga moom nga moom moom moom nga man dama ci gën a xam Sëñ Abdou Lahad. la dëgg la daal loolu rek a tax wax tax waaw. te it jëfam nag murid yëpp nangul nañ ko ko. Mm-hmm. adduna sëpp nangul nañ ko ko. dëgg la waaw. kenn ku ne xamoon na digganteem ak Abdou Diouf. ñu mm-hmm. meloon mm-hmm. kenn ku nekk xamoon na digganteem ak keneen ku man doon waaye nag lim lay defender défendre li nga xam ne moom la lay jàppale jàppale tegal ci yoon bi rek boo wàccee yoon bi rek mu daal la koy woon fi sax ak koo mën di doon nag dëgg la wallaahi waaw am na euh, boo xam ne bi euh, bàcc gee moom ma ko nettali bàccum bàcc sëfër. Mm-hmm. na ma dañoo nekk euh, kër Ndakaaru. Mm-hmm. kër sëñ Modou Moussa boobu mu foofu la ñuy dal. Mm-hmm. boobu sëñ Fallou ngi. sangoor yi woo woo ko yónnee ko ne damaa bëgg bu subaa danaa la yónnee motaar yi dama lay recevoir ci palais bi. moom sëñ Blaat waaw moom sëñ Blaat. nee na ma bi jotee. mu ne ma ba bàcc andi bi. mu andi bi ñu daal di départ. xam boobu yoon yi taxut mu demee noonu. Mhm. jamonoy sëñ Fallu. Mhm. nee na bi ñu agsee guddi loolu la ñu agsi Touba. Mhm. naka ñu agsi mu daal di toog tuuti tànn bàcc oto ma ma ma ñëw mu daal di wuti borki bokki barka. nee na ñu agsi bokki barka mu daal di tëdd ci digg ëtt bi. daan na alhamdulilah rabbil alamin Senghor de damaa bëgg a jaxase sëñ Fallu rek. waaye man waaye man waaye man déwoogu ma bu soow yàlla. la ilaha illallah waaw wóo tot tot tot tot macha allah. na naka fii amul téléphone amul dara amul courant amul dara. kenn amul fu mu ne déedéet. mu koy réer na. <laughs> ndax moo xam na ne bu moom mi diggante ma nga sëñ Fallou jékki-jékki sëñ Fallou sëñ Fallou euh, yëng na ma nga fa. man mën nañ ko lu ne mën nañ ko jaax wallaahi alasim gis nga bi mu doonee xalifa itam nga ni mu ko ni mu maîtrisé woon loolu. Mm-hmm. gis nga fi mu toll lii am nii audience yeeg wax yeeg yëpp. Mm-hmm. jamono si yëpp la amutoon. kilifa gu ne ci yoonu murit mm. boo amee soxla mm. boo ñëwee ci sëñ Abdou Lahad la bi sàngam Abdou Diouf dana fi ñëw waaw bu ñëwee ñoom ñëpp ñu dalal leen mm-hmm. bu ngoon jotee ba nga xam ne mi nga bëgg a dem mu ñëw toog Abdou Diouf ñëw toog ki koy euh, secrétaire ki koy bindal ñëw toog sëñ Abdou Lahad toog muy woo par kilifa kii de mooy sëñ Fallu dëkk sàngam lay nangam luy soxla nga ne nangam ak nangam ñu bind mu teewee lépp ñu woo keneen mu nuyoo ak moom kii nangam nanga tool sangam la nekk fa lay liggéeyee loo loo soo soxla ñu ne nanga ñu bind. léegi bu doon am coow ba ba lépp jeex kenn ko mataan am audience di ñaan audience di dem fa amutoon kër sañ fii nga daan ñëw su demee ba Abdou lu ca lijjantiku buy ñëw ëndaale waat ko. diw de lépp mbiram lijjantiku na diw mbiram lijjantiku diw mbiram lijjantiku na. c'est kenn nit koo xam ne kii mas ngaa ñemee génn Sénégal ñaaru yoru passeport di génn tey kilifa Moussa sëñ Bas mii mii sëñ Bas mii moom sunu ma mii xalifa maam Thierno. Mhm. passeport am sëñ Blaata ko xotti. sëñ Blaata ko xotti waaw. ku ma sant dem boo taggoo si ak doon yoon wi ñu amoo sañ-sañu génn te tàggoo sëñ Blaat te boo tàggoo bu bu dee bu dee farata. Mhm. dana la ci dana la ci defal la ci war bu dul farata doo dem. jërëjëf Cheikh Abdoulaye Mbacke jërëjëf jërëjëf kon xanaa ma kàddu yu tàggatoo yi rek waaw jërëjëf xanaa nag euh, di santaat yàlla subhaanahu wa rek mm-hmm. euh, ci def gim nu def nuyu doomu aadama def nu ay jullit mm-hmm. boole du ak Serigne Touba mm-hmm. euh, te nun amuñu lu lu dul sëriñ bi waaw di siyaare dem Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla bàyyil na ko fi te wéral na ko waaye nag ki waral bis bi ba tax nu toog fii jii mm, muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké eh, ñu di ko eh, ñaanal tey eh, taasu ci barkeem waaye nag ñaan gi ñu jiital ci njabootu boppam sëñ siidi mi nga xam ne mooy xalifa bi ak mboolem ay rakkam ak mboolem ay sëtam mm-hmm. yàlla mi nga xam ne mooy borom lépp mm-hmm. ci barkeb seen maam Mm-hmm. ci barkeb seen baay ak li mu liggéeyal liggéeyal sëñ Tuubaa mm-hmm. barke boobu ak jëf jooyu yàlla na sotti ko ci seen kaw amiin barke sëñ Tuubaa yàlla bu ñu dajeeg sëñ sëñ Abdou Lahad Mbacké Durus amiin la sëñ bëggoon ci diine ji bëggoon ko ci taalibe gi bëggoon ko ci bokk yi daan ko dox yàlla na ko yàlla def ci seen kaw allahumma amiin parce que sëriñ Touba amiin yàlla na ko yàlla boole ñun ñëpp noo ngi siyaare ñëpp sëñ bii nga xam ne mooy moom sëñ Amsatu mii mm-hmm. yàlla day sama wëlëre bopp yàlla na ko yàlla sàmmal eh, bañuy ñuy ànd boobu mën naa wax ne yàgg na ndax gone lañ booba waaw kon nag yàlla na ko yàlla jàppaleel moom itam eh, tegal nu ko ci ci ci gar wattul na ko waaw te nuyul nuyu te njaww Sëñ Abdou Lahad képp waaw ñoo ngi ñoo ngi siyaare bokk yi fi nekk yëpp mm, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf eh, sëriñ Abdoul Aziz moom sëriñ Mouhamadou Awa Balla Mbacke moom maam Thierno Ibrahim borom Daarul Moxti Eh, jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun ci seen télévision Lamfal TV dañu seetaan ci jataay bi nga xam ne ngir ko dund ak jaari jaari jàmbaari lislaam jooju di Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké eh, kon nag eh, jataay yaa ngi noonu incha allahu rabbi ñu di leen ko amal ak ci njabootuk Serigne Touba gi ak seexi Serigne Touba yi. ngir nafaraat seeni jikko waaye fàttaliku waat itam seenu doxalin ngir ñu am fu ñuy teg sunu tànk ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di jaajëfal bu baax baax sunu caméraman yi di alhaaji Fallou Silla feggoon ak sëriñ Fallou saw ci micro bi seen bokkum taalibe falu Gala Silla ñu ngi leen jox dox daje ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بسم الإلائفن الأدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله بسم الإلائفن الأدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله bismillahi finin akdar yana safi baqa abihim li fika yana ya man lahu al-amru ya man la tari